mbay ma boo ci génnee asaka benn rek jeex na waaye nag bu boo wëlbatikoo jaay mbay ma ni nga ko baaxoo defee ci gerte wëlbatiku jaay gerte gi mbaa nga bay du wëlbatiku jaay dugub ja kon saye boo datee bis ba nga jaayee gerte ga mbaa dugub ja bu dul see déwénte rek te fekk mat nisaab rek ba tey asaka war ci waaye nag su boobaa asakay xaalis ngay génne doo génne asakay mbay na nga defoon ci génne fukkeel ba mbaa genn wàllu fukkeel déedéet lay nekkatul mbay njëg gi ci juddoo asakay wut sa xaalis rek lay doon na nga ko daan génne nga koy génne bala noo jàll nu fàttalee ne boo delloo ci fam doon wax naa bénéfice bu ne dañuy seet ndey ja mooy la ko jur bu dee juru kër ba tey doom ya dañuy seet seeni cosaan muy ndey yaag bàyyi ya leen jur am na fu saraa bi tënkee tuuti nag lu am solo di wax naa lam yu bayyinil musannifu rahimahullaahu xawla aslihi wa fiihi tafsilun li ann aslahu imma an yakuna aynan tasallafaha aw xardan tasallafahu aw aw xardan ishtaraahu liltijarati aw xardan ishtaraahu lilkinyati wa bada lahu attajru fiih falxawlu fi lawali min yowmi alqard wa fi ltaani min yowmi altajr wa fi ltaalisi min yowmi alshira wa fi raabixi min yowmil bay nee na la jur bénéfice ba baa la juddoo ci alal ja ndey ja benn muy keegoo xam ne moom da koo leb mbaa muy marchandise bu mu leb mbaa muy marchandise bu mu jënd te ba mu koy jënd ngir yaxantu muy commerce moo tax mbaa muy marchandise bu mu jënd ngir faje soxla rek mooy bu amee soxla jaay ko faj soxla gannaaw ba nag mu am ci yéene yaxantu ca kon bu dee ku jëkk ga muy wurus ak xaalis bu mu yoroon dañ lebal ko ko dong moom gis bañ ko ko lebalee rek lay tàmbalee at ma bu dee ku ñaareel ka te mooy marchandise ma mu leboon ngir jaay ko am ca bénéfice kooku moom bis ba mu tàmbalee jaay ga rek lay dote at ma du tàmbalee bis bañ ko ko lebalee moom marchandise ma déedéet da koy tàmbalee ci bis ba mu tàmbalee jaayub marchandise moomee bu dee marchandise bi nga xam ne moom da koo jënd ngir jaay jënd xam nga mee nga weesu moom day marchandise bu mu leb ngir walbati ko jaay ko am ci bénéfice kooka moom bis ba mu tàmbalee njaay ma lay seet du seet bis ba mu lebe bi ci topp nag mooy marchandise moo xam ne moom bu mu ko bu ko jënd te ba mu koy jënd ngir yaxantoo tax moom bis ba mu jëndee marchandise ma rek day daal di tàmbali at ma ne foofu la date at mi ne at mi foofu la date foofu la tàmbalee ki ci mujj nag mooy marchandise moo xam ne ba mu koy jënd moom ngir faj soxlaa taxoon waaye gannaaw ba nag daa am xalaati far ci commerce jaay ko am ci bénéfice kooku nag moom bis ba mu tàmbalee jaay ga rek lay date ni mooy at ma foofu la dale wa fii ma nekk na ci la nga xam ne yaxruju na génn minal maadini ci mbell min zahabin ci wurus aw fiddatin wala xaalis azakaatu asaka ita balaxa ndeem jot na was na xishrina màndaxin ñaar fukki dinaaroon ci ay dinaar aw xam sa awaaxin wala juróomi uqiya fiddatin ci xaalis fa bi zaalika ko nekk na ci loolee rubuxul xushri kaaru fukkeel ba yow ma xuróoj yi ci bisub génnam nga nee na buñ dee gas wurus ak xaalis ca mbell ma dañuy seet ba xam lañ ca génnee ci wurus ak xaalis mat na nisaab wala déet su fekkee ne day wurus te mat na ñaar fukki dinaar maanaam mat na quatre-vingt-cinq grammes naa bu dee xaalis daal su matee nisaab yi xaalis te mooy ñaari téeméer yooyu yoon te loolu mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes xaalis bu sell bi matee loolu faaw asaka warte su boobaa na nga daa génne asaka nga koy def mooy da nga koy diviser par dix la génn mooy ab fukkeel fukkeel boobu nga def ko diviser par quatre par quatre ya lu génn rek mooy doon asaka ja baka saalika naka noonee la fii maa ci la nga xam ne yàq ruj dana génn baax de saalis ginnaaw loole muttasilan mbir mi aji jokk bii ci moom wa in xàll ak doonte néew na maanaam kan mi boo ci xasee gasee lu mat nisaab moo xam wurus la moo xam xaalis la ba asaka loola du tee boo boo gasaatee du tee boo gasaatee génne lu matul nisaab du tee nga génne ci asakaam ndax dañ koy boole la jiitoon rek ci misaal boo gasoon génne lu mat quatre-vingt-cinq grammes ba mopp ko daal koy asakaal gannaaw ba nag nga gasaat génne lu mat 40 grammes donc su boobaa xam nga ni nga génnewaat matul nisaab waaye du tee rek nga seet la ci war a génn muy rubaxlu shiri kaaru fukkeel bi nga génne ko ca da nga xas nga génne ci mbell mi lu mat nisaab rek lu génnaat gannaaw ba lu mu néew néew nga war a génne la ca war ci asaka fa in xataxa ndeem dog na nayluhu reenam ba bi yadihi ci loxoom boobu tadaa te mu tàmbali xayrahu budul moom la mu xas du génne cheyan dara xataa yeblu xam te mu jotee maa loo xam ne fii nekk na ci moom azakaatu asaka ñaari reen kenn du ko boole boo gasoon reen bi ba mu sës nga am ci lu mat fukki dinaar gasaat beneen reen ba mu sës am ci lu mat fukk xam nga kon boo boole woon mat nisaab mu ñaar fukki dinaar waaye du tax asaka war ci reen bu ne rek la ñuy topp ak li ci juddoo daal nee nañ la benn reen moom boo ko toppee ba génn ci lu mat nisaab ba asakaal ko gannaaw ba lu ci génnaat lu mu néew néew asaka war ca waaye nag ñaari reen ñi moom kenn du leen tàppee boo gasee reen bi ba mu sës te matul nisaab boo gasoon ba ca des ba mu sës matul nisaab asaka la war ci benn ci ñoom ñaar donte boole boole itam mat nisaab du tax asaka war ca watu xasu def na jàpp al jisiyatu galak min fi jaali ahli zimmati ci góori ñañ wala re al ahraar ña di ay gor dafay boole waaw nag moom fi ne wal ahraar ak gor ya al baalax fi ne ña di way kàllafe wala tuuxasu waaye def ko jàpp min nisaayihim ci seeni jigéen wa sibiyaanihim ak seeni gone wa xabirihim ak seeni jaam nee na yéefar yi nga xam danoo fasa ñoom wala re bañ a xeex ñoom bàyyi leen ci lañ nekk ñu bàyyi na ci lu nekk ñu amante jàmm rek noonu ñoom duñ joxe asaka kon war nañu joxe galak galak nag mooy lemp la xaw a wecc ci dañ ko miine fii dañu seet bu nekk la mu war a joxe kay joxe nag moom faaw day nekk góor jigéen génn jigéen di joxe day nekk goro jaam génn day nekk mag gone génn na koy joxe moom faaw day nekk góor tey goro tey bu kàllaf daañu wax la muy joxe nu mu toll wa tuuxasu def na ko jàpp minal majuusi ci majuusi wa min nasaaral xarab yi ak ci nasaraani arab yi waaw nee na kañ amanteel wala rek moom moo xam majuus la ni ki day jaamu sawara mbaa lu bokkut daal junni ji bàyyi ko ci asamaan ni ki day jaamu sawara mbaa jant bi mbaa leneen mbaa bokk ci nasaraani arab yi lu mu ci mën doon buñ jubanteeg moom rek mu war di joxe galag googu le wal giseetu galag nag xalaa ahli zahabi bu dee ci ñooñu rus arbaxatu danaa niira ñeenti dinaar lay doon waxaala ahli warisi bu dee ci ñoom xaalis arbaxu nañ ngeen fukk la dirhaman ci ay dërëm ay jamono nañ ko daan defee nii bu dee ñoo xam ne wurus lañu ëpp jëfalante dañu laaj benn bopp bu ne ñeenti dinaar bu dee ñoo xam ne xaalis lañu ëpp jëfalante muy waxaala ahli warisi warisi mooy xaalis boo def wari boo def warana mooy fi ay xob kon bu dee ñun xaalis moom bopp ci nekk ñeen fukki dërëm lay joxe ba yu xam foofu def na ko woyefal anil faqiri wal si aji ñàkk ba tey nag bu fekkee ne kooku daan ñëw doole mën nañu ko wàññil ñeenti dinaar yi bu dee wurus wala ñeent fukki dërëm yi bu dee xaalis kem na dooleem toll bayu xasu def na jàpp ni man ca ka nga xam ne tajara yaxantu na mbir xum ci ñoom muy ufuxin tàmbalee ci gox ilaa ufuxin ba ci ab gox mushru tamanimaa fukkeelu njëgub la nga xam ne yab yi xoona ko danañu ko jaay wa in ixtalafoo ak doonte baagante nañu fi sanati ci at mi miraaran ay yooni yoon nee na ñooñee ñu fasanteel wala re bu fekkee dañ leen may ñu jaay ak jënd bàyyi ko ci gox bale ba ci gox bale ci biir réewum jullit ñi booba nag gox yi daa nekkan juróomi gox ci yooyu jamono biñ dee bàyyi ko ci gox bee jëm ca bale nag moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ moo xam ay gone lañ moo xam ay mag lañ moo xam ay gor lañ moo xam ay jaam lañ di yaxantu dana aajoo ñu fay li ñuy wax taxe wala boog duwaañ te loolu mooy lañuy jaay daal dañu seen njëgg def ko fukki xaaj ñu joxe benn ba benn ba mooy doon lañu leen di laaj ñu war koo joxe doon sax dañuy bàggante ci at mi ay yoon yoon ba tey du tee yoon bu ne rek ñu fay loolu fay ko ci yoon bee du tee ñu fayaat ko ci yoon wa ca des wa in xamaloo ndeem sëf nañu ak taxaama ñam xaasatan dong ilaa màkkate jëm màkka wal madina ak madina xaasatan dong waxi sa kon jàppeef min hum ci ñoom nisful xushri genn wàllu fukkeel ba min taman yi ci njëgam nga bu fekkee ne ñoo ñu fasal wala ne ñam rek la ñuy indi te duñ ko weesalee Makka ak Madina kon daañu leen woyefalal dañ leen di laaj su booba woyefal gi mooy dañu leen di laaj genn wàllu fukkeelu njëgga te bañ leen a laaj fukkeel ba dëgg-dëgg loolu njëkk wax léegi daal moom mooy la ñuy jaay la ñuy seet njëgg nu mu toll njëgg ñu def ko fukki xaaj ñu joxe benn ba waaye nag dagam ñam rek la ñuy indi te ñu ko wesee Makka ak Madina dañ leen laaj genn wàllu fukki lu njëgg te bañ leen laaj fukki lu njëgg dëgg dëgg ba yu xasu def na jàpp min tuj jaaril xar bi yi na ci commerçant yi xare àll ya wala nga ne ci way xam tuñ xare àll ya alxushul fukkeel ba xare àll yi mooy ñi nga xam ne amu ñëw ñoom wëlëre ñi nga weesu léegi mooy ñi nga xam ne ñoo amante ñu wëlëre xare àll yooyu ñoom fukkeelub la ñuy jaay moom lañu war a joxe te duñ seet sax ba xam dañoo bàyyi ko ci gox bi ba ca gox bali wala dañoo jaayee ci benn béréb rek te nag ñee nga weesu muy ahlu zimma ñañ fasantil wala rek ñoom bala ñoo jël ci ñoom loolee nga waxam day fekk ñu bàyyi ko ci gox bale dem ca gox bale waaye ñi nga xam ne ay xare àll lañ nag moom donte ci benn béréb bi rek lañu jaayee mu ñu wër gox yépp jaay ci ñooyee moo du tee rek dañuy fay fukkeelu lañuy jaay ila añol ci loolu bu dañoo nangoo wàcc xala ak sa ci lu ëpp min saalika ci loole lu may nag njarteel jaral na leen ñi fay lu ëpp loolu waaw bi nag buñ nangoo joxe lu ëpp fukkeel ba loolu baax na waaye fukkeel ba moom bu mu ko yees buñ nangoo joxe lu ko ëpp nag ndax njarteel jaral na leen ko loolu baax na wa fi rikaas nekk na ci rikaas waxoote moom diflul jaahiliyati mooy suuliiti way réer ña maanaam suuliiti ñu ñëpp lislaam alxumus su juróomeel ba xalaama warga nga xam ne asaaba ko jot na ko dafa xam ne rikaas wax ne mooy la nga xam ne ñu njëkkal lislaam ñoo ko daa suul dañ ko tuddi rek suul gi ndax li ëpp ci ñooña dañ daan suul di ki fii sax ci suñ réew mi séeréer si bañ tuubagut xamaguñ luy lislaam buñ masaa denc seen néew dañ dañ koy suulaaleeg xeeti alal yooyu waaye ci gàttal moom jàppal ne alal joo xam ne for nañ ko ka ko for moo xam jullit la moo xam yéefar la waaye jàpp nañ ne ak yéefar ko moomoon ndax ci suñu ca benn màndarga bi wane ne ab jullit mas na koo moom da am yu yemale nag mu nekk wurus ak xaalis ak mu nekk leneen am ñu ne déedéet bu nekkee wurus ak xaalis rek kat lañ wax su boobaa ka ko for bu ko defee juróomi xaaj day téye ñeent ya jël benn ba nag jox ko ilimaan ba su fekkee ilimaan bu maandu am na baax na su fekkee ilimaan bu maandu amut mu sarax ko miskin ya buñ ko gisee mandarga mooy ne abdul mas na ko moom nag moom dañ koy jàppe por daa koy xamle ni war a xamlee por loolu moo tax ñu ci sart mu nekk loo xam ne abdulit masu ko moom gisuñ ci mandarga moo leen abdulit mas na ko moom daal baabun lu ab buntu la fi zakatil machiyati ci asakay ndoxteef ndoxteef mooy jurub kër wa zakatul ibli asakay gëléem wal baqari ak nag wal xanami ak gàtt faridatun farata la maanaam gëléem ak nag ak xarat bay génn ci asaka lu war la bu fekkee nisaab ja mat na wala zakaatu di asaka min al ibli ci gëléem fii aqal la ci lu yées min xam si zawdin ci juróomi fekk min xam si zawdin ci juróomi fekk fe agg waxin wolof la waxiye moom nag xam si mooy juróom min al ibli ci ay gëléem gëléem moom leen li fekk amoo ci lu mat juróom rek asakut la war ni ki genn yaar yett yent dara waru ci bu amee juróom nag asaka war ca waaye nag asaka du nekk gëléem fa saasa mooy fa fiihaa nekk na ca chaatun ab gàtt jasaxatun jasax lay doon aw saniyatun wala saniya min julli xanami ahli dalikal baladi ci la ëpp ca gàtt yi ñooñ boobale dëkk min da'nin ci xar aw maasin wala bay mais boo amee juróomi gëléem dañ lay laaj benn gàtt benn gàtt ba mën naa nekk jasaxa mën naa nekk saniya bu dee xar moom jasax rek baax na mooy bu am at mat ba dugg ci moom ñaareel ma ak lu dugg ko néew néew saniya nag mooy mu dugg ci atum ñaareel ma dugg gu baax a baax ne bu dee bëy moom loolaa cay gën waaye dañuy seet nag foofee rek bu fa ëpp bu fekkee xara fa ëpp ca ngay joxe benn gàtt boobu dafa bay ëppee itam nga génne ko ci bay bu ñu fa yewee ñoom ñaar nag nga génne ko ci xar borom sara bi bu dee xamle jasan ak saniya day wax ne ku mën doon ci ñoom ñaar rek mooy mu am at ba dugg ci atum ñaareel ma waaye nag saniya moom mooy mu dugg ci atum ñaareel ma dugg gu baax a baax gu wér a wér ma tax mu naa waxuma ma aw faa sanatan wa daxala fi saniyati illa an nastaniyata ma aw fat sanatan wa daxalat fi saniyati duxulan bayinan ba juróom ñeenti gëléem ila tisaan ba juróom ñeenti gëléem maanaam da tàmbalee juróomi gëléem ba juróom ñeent doo soppi benn gàtt bi nga daa joxe suma fil xas yi topp nekk na ci fukk shaataani ñaari gàtt maanaam bu fekkee mat na fukk gëléem nag ngay joxe ñaari gàtt muy seen asaka ila arbaxata xasara ba fukk ak ñeent maanaam di dalee fukk ba fukk ak ñeent doo yokk ñaar yi nga daan joxe suma fi xamsata xasara topp nekk na ci fukk ak juróom talaasu siyaahi ñetti gàtt su matee fukk ak juróom ci gëléem nag nga tàmbalee joxe ñetti gàtt ila tisxata xasara ba fukk ak juróom ñeent ba fukk ak juróom ñeent doo yokk ñett yi nga daan joxe fa isa kaanat ndem nekk nañu fichtiina di ñaar fukk fa arbaxu siyaahin kon ñeenti gàtt boo amee ñaar fukk gëléem nag ñu topp ko juróom bu ne nga joxe ci ab gàtt kon nga joxe ñeenti gàtt ila arbaxin ba ci ñeent waxi si nag ñaar fukk maanaam ñaar fukk yi bu tegalee benn ñaar ñett ñeent muy ñaar fukk ñeent yi du tax nga soppi ñeenti gàtt yi nga daa joxe doo ko soppi waaye nag suma fi xam sin topp nekk na ci juróom waxi si nag ñaar fukk bintu maxaadin bintu maxaad wax yete moom nag bintu sanatay ni mooy doomu ñaari at daa wax ne nag bu fekkee am nga wenn cinq ci gëléem nag foofu la ñuy tàmbalee joxe gëléem waaw boo amee wenn cinq ci gëléem da ngay bàyyi joxe gàtt nag tey joxe asakay gëléem foofu ngay joxe bintu maxaad bintu maxaad mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na at ba dugg ci moom ñaareel ma daa wax rek doomu ñaari at waaye doomu benn at ba dugg ci moom ñaareel moo ko tax di wax fa in lam tëkku ndéem amut fiihaa ci ñoom fa bi nu la boon kon ibnu la boon zakarun bu góor su fekkee amoo ci sa jur bintu maxaab kon mën ngaa joxe ibnu la boon ibnu la boon nag mooy ko am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel waaye day góor nag boole ca moom bintu ñoo tolle at waaye bintu day nekk jigéen ibnu nekk góor kon nag bu fekkee amoo bintu maxaab daañu la may nga joxe ibnu la boon waaye nag gëleem góor lay nekk bu am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ilaa xam sin ba ci juróom wa talaasiin ak fanweer la dale wen cinq ba 35 doo soppi bintu maxaab di nga daa joxe su ma fi sittin topp nekk na juróom benn wa salaasiin ak fanweer bintu la boon bintu la boon wax ya moom bintu talaasi sinina mooy doomi ñetti at doo ko waxee noonu rek waaye mooy doomi ñaari at ba dugg ci moom ñetteel daa wax ne nag bu fekkee ne 35 ya tegu na benn muy 36 foofu ngay soppee tàmbalee joxe bintu la boon bintu la boon nag mooy gëléem bu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ma ilaa xamsin ba ci juróom wa arbaxin ak ñeen fukk bu ma ngi ñëw ci quarante cinq doo soppi di joxe bint la boon bi nga mujjatul léegi su ma fii sittin topp nekk na juróom benn wa arbaxin ak ñeen fukk xiqatun xiqa waxiya moom xiqa allati yi mooy ba nga xam ne yasluhu dana yiw ala zahriha ci gannaawam alhamlu sëf ba wa yatruquha te koy rañaan mooy te muy mën te koy mën a tëb rek alfaxlu kuy la waxiya moom nag bintu arbaxi sinina mooy doomi ñeenti at daa wax ne 45 yi bu tegalee benn muy 46 foofu ngay soppee bàyyi joxe bintu la woon tey joxe xiqa xiqa nag mooy ku am ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel ma daa jekki-jekki ne rek waxiya bintu arbaxi sinina ne mooy doomi ñeenti at waaye déedéet ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel lañ bëgg a wax kon jàppal ne boo amee 46 foofu ngay tàmbalee joxe xiqa te xiqa mooy këlim bu jigéen goo xam ne mën na mënees na koo sëf mat naa tëbu te muy am na ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel su ma fi ihdaa topp nekk na ci benn wa sittiin ak juróom benn fukk jasaxatun jasaxa xam nga li nga mujj wax léegi da nga ne woon li tàmbalee 46 ba 60 60 yi nag léegi bu tegalee benn muy 61 foofu ngay tàmbalee joxe jasaxa te bàyyi xiqa waxiye moom jasaxa bintu xam si sini na mooy doomi juróomi at boo ko waxee noonu waaye mooy doomi ñeenti at ba dugg ci moom juróomi at kon 61 boo ko amee rek foofu ngay tàmbalee joxe jasaxa bàyyi xiqa kon yent yim la waxal noonu lañ magantee dafa njëkk a tudd bintu maxaab teg ci bintu laboon teg ci xiqa teg ci jasaxa muy ñeent jàppale ka jiitu daa am at ba dugg ci moom ñaareel ka ca topp ñaar ba ci moom ñetteel ci topp ñett ba ci moom ñeenteel ki ci mujj ñeent ba ci moom juróomeel noonu la ñuy magante ilaa xamsin ba juróom wa soppi xinaa juróom-ñaar fukk la dalee soixante et un bu ngay ñëw soixante quinze doo soppi jasan bi nga daan joxe suma fi ci tin top nek na juroom benn wa sabahina juroom ñaar fukk binta la bo ñi ñaari bintu la bo manam bo weso 75 mu tegu benn muy 76 fofu ngay tambalé na joxe ñaari bintu la bo fekk na xam nga bintu la bo nak ngay joxe ñaaram suma fi ba ci 90 nak do soppi ñaari bintu la bo ngay joxe suma fi ihda top nek na ci benn wati ci na juroom ñen fukk suqataani ñaari suqa manam 90 yi bu tegalé benn muy 91 foofu ngay soppé nak tambalé joxe ñaari xiqa te bàyyee joxe ñaari bint la ba ñu nga daan joxe ila hajjina ba ñaar fukk nak wa mi atin ak téeméer la dalé ci 91 ba ci 100 we ba ci 129 la nga daa joxe du soppiku ba tey yaa ngi joxe rek ñaari xiqa su xasi àgg nag ci cent trente nag moom lay wax naa fama saad lu yokk xala dalika ci loolee fa fii kulli xamsiina nekk na ci bépp juróom fukk xiqatun xiqa wa fii kulli arbaxiina nekk na ci bépp ñeen fukk bintu laboonin bintu laboon maanaam cent vingt neuf bu tegalee benn muy cent trente jëm ca kaw nag lay wane ne moom dañuy seet sa jur rek par ay cinquante ak par ay quarante su fekkee lépp mën naa nekk ay cinquante baax na su fekkee lépp mën naa nekk ay quarante baax na bu mënee teqalikoo lee nekk ay quarante lee nekk ay cinquante baax na cinquante bu ne nga joxe ci xeq muy asakaam quarante bu ne nga joxe ci bunt la ba muy asakaam mel ne bu doonee cent trente képp yem ci day doon benn cinquante ak ñaari quarante benn cinquante ba nga joxe ca xeqa ñaari quarante ya benn quarante bu ne nga joxe ci bunt la bon noonu lay wéy rek nag fukk fukk bu ci yokk rek la nga daa joxe noonu lay demee wala zakata dit asaka min al baqari di nek ci nak fi aqal ci lu yees min talatina ci fanwer fa iza balaqat ha ndem jot nako nak ndem ag na ci fanwer fa fiha ko nek na ca tabihun tabihun te hijlun modi as yek jasahun suri jasahun qad awfaquk matalna sanatayn yari at nak mom len li fek amu ci fanwer asaka warul bo amé fanwer na lolu moy nisab ji ci gëna neew nga wara joxe nawu góoru amee ñaari at nawu góoru am ñaari at moom nga joxe ndax moom sax boo joxe u jigéen bu baax dañoo jàpp ne joxe góor gi moo gën a yomb rek waaye boo amee fanweer nag daal joxeel wenn nag woo xam ne am na ñaari at muy sa asaka góor la wax nag waaye boo joxee jigéen ji itam mu baax su ma kasaari ka topp naka noonee la xataa tabluxa bu bañu jot arbaxina ñeen fukk fa yekkoon tey nekk fii xaa ci ñoom musinat musin na moom nag wala tuuxa fi def ko jàpp illa unsa ndare muy jigéen mu ne waxiye moom it bintu arbaxi sini na mooy doomi ñeenti at daa wax ñeenti at waaye ñett yi moom moo gën a siiw daa wax ne li dalee trente ci ay nag ba ba ngay dem trente neuf bu ñeen fukki manqué benn doo soppi li nga daa joxe mooy wenn nag bu am ñaari at su tegoo benn muy quarante nag foofu nga tàmbalee joxe musin na musin na moom dañuy sart muy jigéen te it day am ñetti at yu mat sëkk léegi wax ne mooy ñeent nag moom sartuñ ci mën ñeent ñett yi daal moo gën a wóor mel na ne wax ya moom sax saniyatu moo tudd saniya waaw musin na boobu nee na moo tudd saniya fama saada lu yokku nag foo fii kulli arbaxina nekk na ci bépp ñeen fukk musin na musin na foo fii kulli salaasina nekk na ci bépp fanweer tabihun aji topp yaayam la dalee quarante ba ci cinquante neuf amutuk soppiku musin na lay joxe cinquante neuf nag bu tegalee benn muy soixante mu daal di nekk ñaari trente mu daal di joxe ñaari tabion noonu lay soppiku di wéy nag fukk yoo xam ne yokk na ci rek lam daan joxe soppiku ndax juróom benn fukk bu tegalee fukk muy juróom ñaar fukk nga jàpp ne kon am na benn quarante ak benn trente trente bi mu joxe ci xijlu muy tabion quarante bi mu joxe ci machine na su tegalaatee fukk muy quatre vingt ñu jàpp ko muy ñaari quarante mu joxe ñaari machine na muy wéy rek nag noonu lay tegaloo di wéy nga xam ne daal lu ay nagam bari bari bari noonu lañ koy toppee trente bu ne mu joxe ca tabion quarante bu ne mu joxe ca musinna su fekkee lépp daa nekk ay 40 40 bu ne musinna bu lépp nekkee ay 30 30 bu ne tabiyon buñ jaxasoo nag ñu teqale ko 30 bu ne tabiyon 40 bu ne musinna wala zakat di asaka fil xanami ci gàtt xataa tabluxa ba tañu jotee arbaxina ñeen fukk chiatan ci ay gàtt fa isa balaxatxaa ndem jot na ko rek fa fiiha nekk na ca chiatum benn gàtt jasaxatum tey jasaxa lay doon aw saniyatu wala saniya ilaa xisina ba ñaar fukkoo mi atin ak téeméer maanaam xarak bay moom mooy gàtt li fi amoo 40 rek asaka waru la ci boo amee 40 nag foofu nga war a joxee benn gàtt muy sa asaka mën naa nekk jasan mën naa nekk saniya bu ko defee li tàmbalee 40 nag ba 100 we téeméer ñaar fukk doo yokk la nga daa joxe benn gàtt rek ngay joxe fa isa balaxat ndem jot nañu ihda benn wa xashrina ak ñaar fukk wa mi atan ak téeméer fa fiiha ko nekk na ca shaataani ñaari gàtt ila mi at ay shaatin ba ci ñaari téeméer yi gàtt maanaam cent yi bu tegalee benn rek muy cent vingt et un foofu ngay tàmbalee joxe nag ñaari gàtt ilaa mi atay chaatin ba ci ñaari téeméeri gàtt nga dale ci cent vingt et un ba nga ñëw ci deux cent doo weesu ñaari gàtt yi nga daa joxe fa isa saadat ndem yokk nañu waahidatan benn fa fiihaa kon nekk na ca salaasu shiyaahin ñetti gàtt maanaam bu fekkee am nga deux cent un ñu ñaar téeméeri tegal benn foofu ngay soppee tàmbalee joxe ñetti gàtt ilaa salaasu mi atin ba ñetti téeméer ba ba ngay am trois cent ba ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf muy ñeent téeméer yi manqué benn doo soppi ñetti gàtt yi nga daan joxe soo amee ñeenti téeméer nag doo la joxe ñeenti gàtt mooy fama saada lu yokku fa fii kuli mi at yi nekk na ci bépp téeméer seetu benn gàtt maanaam soo amee quatre cent ci ngay joxe ñeenti gàtt ñu tàmbale wañu nag par ay téeméer nga xam ne boo amee juróomi téeméer joxe juróomi gàtt boo amee junni gàtt joxe fukki gàtt xam ne benn téeméer bu ne rek benn gàtt mooy asakaam kon jàppal ne di tàmbalee deux cent un ba ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam muy ñeenti téeméer yi manqué benn doo soppi ñetti gàtt yi nga daan joxe soo amee ñeenti téeméer nag foofu ngay joxe ñeenti gàtt ñu tàmbalee foofu di wàññi nag par ay téeméer rek téeméer bu ñëw bu ne rek nga wàññi par téeméer yeeg téeméer bu ne nga joxe ca ab gàtt wala zakat li asaka fil awqaasi muy nekk ci waqas ya waxee ñoom nag boo ko xamul waqas yi maa mooy la nga xam ne baynal faridatayni nekk na diggante yaari masala ya min kulil anhaami ci mboolem juri kër ya nee na waqas moom juri kër moo ko am ne amul sax ci mbay amul ci wursa xaalis waqas nag mooy buñ la nee boo amee nangam joxeel nangam dañ cee tegaat lim boo xam ne sa jur yokku na ko te sa asakam du ci yokk nit ki li nga weesu léegi ci gàtt moo ci gën a doy waar xam nga danga ne léegi boo amee 40 ba joxe benn da nga dem ba cent we te doo weesu benn bi xool la ci yokk na mu bare te yokkoo dara ci sa asaka cent we yi bu tegalee bennaat bennaat nag mooy cent vingt et un ci nga doo tàmbalee joxe ñaar diggante boobu dox nag quarante ak cent vingt et un yi damuy bari bari te nga xam joxe woo ci dara ci asaka loolu moo tudd waqas xam nga bu dee ci gëléem itam da nga ne boo amee juróomi gëléem joxe benn gàtt waaye boo amee juróom ñeenti gëléem itam ñeent yokk lu tax nga joxal ko dara ci asaka te loolu waqas la xam nga da nga nag boo amee 30 ngay joxe benn nag bu am ñaari at bu amoon 39 nag du tax nga yokk dara ci nga daan joxe bu amee 40 ngay door tàmbali joxe machine na kon la nga xam ne sa jur yokk na ko te sa asaka yokku ko loolu moo tudd waqas waaye loolu nag amul ci mbay amul ci wur sa xaalis mbay moom boo ko doon seet ci ay bërigo ba yàgg butu ay bërigo da nga koy natt ci ay bool mbaa ay biwaar di seet rek juróom-ñeent yoo téye jox yàlla benn muy asaka xam nga woon xam ne nit ki boo ko nattee ay ay biñuwaar ba yàgg mu tudd ay biñuwaar da ngay bàyyi biñuwaar jël lu gën a tuuti boo doon topp ay bërigo ba yàgg mu tudd ay bërigo ne ci topp ay kilo nga xam ne moom bu doon ci mbay daal moom mbaa muy wut sa xaalis moom lu dara néew néew rek la tolloo moom ci asaka war a génn waaye yu ci ma ko def na boole ab da anu xar wal maasu ak bay fi zakaati ci asaka xar ak bay daañu leen boole ci asaka mooy boo amoon tey ñaar fukki xar am ñaar fukki bay dañuy jàpp ne am nga ñeen fukk nga daal di génn benn gàtt muy asaka wala jawaamiisu daañu boole nag yi jawaamiis ya wal baqaru ak nag yi nga miin fii baqar mooy nag yi nga miin fii ci réew mi jawaamis nag ay xeet nag lañ yoo xam ne miinoo leen waaye boo amoon ci ay jawaamis ci misaal ñaar fukk am ci baqar fukk dañ koy boole mi fanweer bu ko defee nga war a joxe asaka muy xijlu wal buxt daañu boole gële ñu buxtu ya wal xiraabu ak xiraabu xiraab mooy gële ñi nga miin fii moo tudd xiraabu buxtu nag gëleem la yoo xam ne miinoo leen waaye boo amoon ci ay buxtu ñett am ci xiraab ñaar dañu jàpp ne juróom la bu ko defee asaka war la wa kullu xal yu tay ni ñëpp ñaar ñu jaxase ak jur fa innahuma naka ñoom ñaar yattaraat daal ni danañu deltoonte baynahuma seen diggante bi sawiyat ci yemoo nee na ñu boole seenu jur bu ca sartee dajee buñ dee joxe asaka ni ki laajkatu asaka bu ñëw di ko jël si du teqale jur ga da koy jàppe genn gétt rek seet ne bu fekkoon ne kenn ko moomoon luñ ci war a génn rek nu mu war a toll mu daal di ko ciy génne dem bu demee nag